الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون mbokki jullit yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ginnaaw ñu sant yàlla julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yéen ñi ne ci bitim réew ak ci biir réew mi ñu ngi leen nuyu yéen ñëpp di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullah yéen ñiy topp suñu émission cosaanal mbindum alquranul karim di leen yégal borom xam-xam bu mag bu ñu fi war a dalal ci wàllu alquranul karim njàng meek boole yeek runge yeeg mbooleem lu aju ci mbirum alquran rek war sa cee mën a waxtaan ak moom muy Serigne Makhtar kebe dëkk tuuba di borom xam-xam di jàngalekat ñu war ko koo dalal suñu émission cosaanal mbindum alquran képp ku ci bëgg xam dara ci émission bi ñu ngi lay ñaan nga abonné suñu seen youtube te bes cloche bi lépp lu ñu am ci information wala waxtaan di nga ci jot insha allahu rabbi wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu bi ni'mati rabbika bi majnun